ñu tàmbali ko démb tey lañu doon eggale lii di examen CFEE yi bi demee foofe ca école parcelle unité 24 ñu fekk ndaw yi def nañ ko ba pare daanaka administration bi kese lañ fa fekk kii di Ousmane Kane mu ngi xamle rekk def nañu examen yi ci jàmm waaw centre bi def nañ ko examen bi def nañ ko ci jàmm ak salaam wax dëgg yàlla amul benn perturbation dara xew fi si loo xam ne mun na indi gàllankoor ci déroulement wu examen bi. centre bi am ñaari téeméeru inscrit ak juróom fukk ak juróom benn. am itamit ñaari pàcc di arab ak français. ba léegi bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ousmane Kane jël nañ ci matuwaay yi war. centre bi daanaka ñaari kii ñoo ko composé am na français am na arab. ñu doon def français seen nombre bi c'est 172 candidats ñu doon def arabe c'est 84 candidats benn absent la ñu constaté au niveau ci arabe bi muy benn xale bu góor à part ça ñeneen ñëpp teew nañu def nañu examen bi ci jàmm ak salaam d'ailleurs sax affecté woon nañu fi benn agent de police bu fi nekkoon ak ñun xëy na da ngeen ko fay fekkul fekk bi ngeen ñëw fekk na daanaka pare nañu ñun dañu nekkoon ci dernier réglage yi mais wax dëgg yàlla examen bi jàll na si jàmm ak salaam. jëwriñ bi ñu dénk njàng mi ak njàngale mi di Cheikh Omar Anne mu ngi xamle rekk ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaari inscrits la am ci biir réew mi. ci di réew ñaari fan lañu amal yile examen bi ñu sukkandikoo ci Ousmane Kane examen yi amal nañ ko ci anam yu war foofe ca école Parcelles Assainies unité 24.